maa ngi lay nuyu di nuyu ñi fi nekk ñépp di am lool ñëwaat fekk la fii ci jotaay bii waa nga fa toog ndax ni ko sa waajur sa mag yu baax di waxe woon moo yaay ay tànkam yaay ay bëtam yaay ay loxoom foo nekk moo fa nekk kon buñ la gisee dañu mel ni moom lay gis man seenu taalibe bokk ci kër gi maa ñëwaat di siyaare si ni mu ko doon defee at mu jot mu bisul sëriñ Touba bi teroo dinaa ñëw fii sàkku si ñaan sàkku si ndigal boo ma ko joxee nag ko bëggee ma defe ko noonu ngir dë- wut si li nga xamante ne mooy ngërëmul sëriñ loolu moo waral ren ma ànd délégation bi ma àndal jóge ndakaaru ñëw indi fi téeméeri junniy masque ak mille 10 cent sel yu pompe yi ngir ñu mën koo def ci liggéey bi nga xam ni danañu dàq mbas mi ni ko sëriñ lu wax man nag li ma leen di wax rek mooy li am solo mooy boo ma gisee may dox boo ma gisee may wax tuubaa rek laay waxal Touba rek moo ma ñor te yow mi yaay ki ma ñor sagub Touba rek laa bëgg te yow moom nga bëgg ndax loolu mooy sab sag ba tax na heure boo xam ne war nañoo jóg mu jëm ci askan ginnaaw bu fukk tedd ki njëkkee maay ko ciy topp ndax bi ñu ko defee ci mbas mi gouverneur maay ka fa toppoon joxe juróom million ko defee si mbirum ceeb bi maay gis topp joxe fanweeri ton bi ñu ko defee si mbënd mi maay gis topp joxe fukki machine tey jii maa fi indiwaat lii loolu nag yow laa koy sant ndax nit ki bu santul nit du sant yàlla te li nga ma defal xam naa fi nga ma teg xam naa te li ko war lépp mooy bëgg gi mu bëgg Tuuba ak taali bi gi ma nekk dama sëñ bi ak taali bi may wax yow am na ay wax yu bari yoo xam ne déggoon na mu jëm ci gan fii ñëw loolu tamit bëgg naa ñu leeral ko ndax tey jii bu ngeen woon bàyyi li ma nekk ma bàyyi bu ngeen ne woon demal nga teeru ko dinaa ko lal ay tapis rouge jële ko Dakar ba fii ndax sëñ Tuubaa man na may may na ma loolu te si yéen laa ko amee te fas yéene nañ koo teer fas yéene ko teer na ngeen ko bëgg te ganuk sëriñ Tuubaa dañ ko war a jàppale dañ ko war a teeru ndax li mu defal fii sëñ Tuubaa la ko defal kon tamit loolu wax naa ko pour ñëpp xam ni lii fii ñëw muy ki fi war ñëw muy président la république li mu def fii sëñ Tuubaa tax mu def ko nit nag bu fekkee def na loo xamante ni maam sëñ Tuubaa tax mu def ko yow mi si bokk bokk si war a sant jàppale ko kon loolu moo war a rek kàddu yi nga xam ne ñu ngi doon dégg yëpp may ñëw pour dalal sa xel xam dara du fi am dara du fi xew dañuy fi ñëw ñaanal ñun sëñ Tuubaa lan am nuyoo euh, suñu doom Cheikh Abdou Mbacké ibnu Sëriñ nga xam ne moom sax daa wax taalibe bi rek waaye doom la ci ñun ndax maamu sëñ Abdou Dia xam ngeen ni mu demee sëriñ bi ci ñaar wet yëpp ak ni mu fa jëpp ba sëriñ bi wëlbatu woon di ko wax ne ko sama doom nga moom kon foofu nga bokk ci biir yoon bi maamam itam li li muy doon doon ci sëriñ bi jaayante ak bokkam jënde ko ak taalibe liggéeyee sëriñ Tuubaa ci gànnaar ba sëriñ bi wàcce ko tofal ko mbooloo comme ni muy defal kilifa yëpp kon boo dellusiwaatee fii yàlla def nga yëngutu ci wàllug àdduna lépp lu fi xew lu nekk nga wane sa yitte wane sa taxawaay wane sa parce que loolaa dañ la ci sant di la ci soñ bu baax te du noonu tam du ñu bett ci du ñu bett ceew ndax euh, seen waajuru Serigne Baara yàlla def na muy sama wóllër wu yàgg wu yàgg lool am ci man ak la ak jàpp boo xamee dara disu ci bi yàlla defee ñu fal leen député yaa ak sama sëriñ Cheikh dafa dem ca sëriñ bi jóge fa yaakaar naa suñu siidi muxtaar moo fi nekkoon booba bi mu dikkee mu ànd ak yéen ñëw fii ci jataay bi ñu toog tey fii la ma ko waxee daal ma leen dénk xamal ma ne ma daal na nga xam ne say doom dañ say taalibe lañ lépp loo dégg ci ñoom lu ñu war sa def bu ma ci xaar nañ leen woo ba ñëw boo wax ko te xam naa lépp loo leen wax danañ ko def kon loola awuma ci sikk sàkk ndax nit moom noo ko jàppale xam na ko te li ngay def ci suñ jëm itam da nga koy def ngir jëm suñu Tuubaa loolu moom xam naa ko ci yow soxla woo maa dégg soxla woo maa gis da def ngir jëm suñ bi rek waaye nag moom moom koy defal nag am na am na am na pay kon lii nga wax léegi itam daanaka jërul dellusiwaat sax waaye loolu moom séntuwuma ko jëm ndax sëñu ko sax ndax fi nga fi nga bokk sama am sëñ Abdou Dia ab sëtam sant ne ci biir Tuubaa si ñun taxaa di santaan dara mu cay mu cay mu naan dara ko def loolu moom. Mm-hmm. ko xamutu ko xalaat waaye yéen sëñu leen ko. te bu ngeen ko naroon def sax kon moo woo leen bi nga ñëw tëral leen ko waaye li tax waxuma leen ci dara mooy xam naa ne du ngeen ko def loolu moom daanaka jëru jëru sax dellusiwaat jëf ji nga fi indi te defoon nga ko daaw jëf ju rëy te li fi xew lépp it noonu nga koy defee loolee itam gis nañ ko waaye nag ki tax nga di ko jëf mooy Sëñ Tuubaa kon yàlla naa da ci fay ndax sëñ moom lu ko waa jëfal rek am na am na pay li nga fi indiwaat ren itam ngir dëggale ko waxee sëñ bi. ngir ndax ñun ni ma koy waxee rek lépp rek yaakaar yàlla lañ ci yaakaar looloo ci Sëñ Tuubaa li nga xam mooy wàllu saahir si xam ne nag suñu borom moo ko santaane loola lañ ci war ci wattandiku ak fexe ba ku fi ñëw ku ne lala la war ci aaru ak sàmm nga def ko kon lii ci liggéey boobu la tàbbi moo taxee sëñ bu Lahad Bousso mi jiite daayira rafet Xidma moom laa wóolu teg ko ci loxoom ku ko defee ñoom itam ñu jël ko téye ko ngir fes fexe loolu dana doon ndimbal lu mag ci seen liggéey bi ci ñoom ndax ñu ngi ko doon ñu ngi leen ko waroon a jox kon yàlla def na li fi jotoon daje sax leen ko jox kon jëf ji moo ci njëkk a tàbbi ci ñoom ñu jox leen ko ngir balaa kenn dugg ci biir rek ñu ñu mën la ko jox mm-hmm. ndax loolu itam bokk ne ci li sàmm ndax ñëpp tolloo ngëm-ngëm ñëpp tolloo woon giseen kon nag laa darara wala dirara kon ku ko gëmul sax war koo def ngir wattandiku sa mbokkum julli bi nga xam ne nekkul foofa mooy la ma ci waxoon bi yàggut kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm